Kossy TV ëttu soxna yu baax yi page yu ñëpp la mu ngi lay ñaan nga aimé sa page Facebook abonné ci sa YouTube te yaatal koog say xarit ak say am di jàmm page baax. bisimilah kon ñu fàttali rek ne ba tey ñu ngi ci téere bi nga xam ne mooy Masaalikul Jinaan nga xam ne Cheikh Ahmadou Bamba moo ko def mu jëm ci tasawuf di fànn gi nga xam ne mooy toppatoo xelu doomu aadama ak xolom ak ruuxam. diko tëskiya diko ko laabal di ko boromam subhanahu wa taala tay nag ñu ngi tàmbali ak yéen fi si nga xam ne fi la sëriñ bi doon waxe solo dundal sa waxtu ba mu bañ jàll ci ak neen doon wax naan wa amir al awqaata bin nawafili bad al faraidi bila taxaafuli wa hakada bi sawmi wal awradi wal dikri wal fikrati fi tamaadi wa bi tasadduqin wa jasbil maali ila sawi al xaaji li wacci wax na dëgg nee na wa amir na nga dundal al awqaata waxtu yi bit nawaafili ci ay naafile baad al faraidi ci ginnaaw farata yi bilaa taxaafulin ci dul ngay sàggan dafa tolloog juróomi ponki lislaam yi nga xam ne mooy kenu lislaam leen lu ci nekk dafa am naafile loo ca mën a toftal mu bëgg nag yooyu nga bàyyi ko xel di ci dundal sa waxtu bañ koo sànk ci ak neen moo tax mu ne wa hakada ndaka noonu bi saw mi ci koor koor sax mën nga ci naafile ndax ramadaan mooy farata waaye bu jàllee teewul mën ngaa coobarewu woor ngir tàggat sa bakkan ak dundal soroo man tatawaa xayran fa inna allaha shaakirun alim nit mën naa def naafile ci koor ginnaaw bu farata yi jàllee wal awraadi ak wérdi yi wérdu mooy dogi jaamu yàlla yoo xam ne yaa koy teg sa bopp yàlla faratalu ko ci yow waaye yaa ko gàll sa bopp ngir bëgg ko war a taxale sa digganteeg sa borom subhaanahu wa taala ndax farata moom koo xam ne ci nga yem rek moom daanaka tuxul ngay jàmbaar dëgg ndax loo mënta ñàkk def la waaye lay wane ne bëgg nga sa borom bëgg nga koo jege bëgg nga am ngërëmam mooy ginnaaw nga xool yoo xam ne jëf yu baax yu lislaam nangu la nga gàll ko sa bopp di ko rattaxale sa digganteeg sa borom di ci jëm di laabal sa bopp loolu nag moom la ñuy tudde werd dana ko wutal bunt ci kanam incha allah boo xam ne dana ci wax yii may tudd nii yëpp lu ci nekk da koy wutalaat buntu spécial wax ci muy baatu sawm boobu ma njëkk ak awraat bi ak zikar ak fikru ak sarxi yëpp rek lu ci ne da koy wutal bunt boppam boo xam ne dana ci wax wax ju yaatu yaatu moo tax leen lu ci nekk mën nañ koo bàyyi rek ba toll ci incha allahu taala nga xam ne kon wer dogu jaam yàlla la booy farataal wutal ko waxtu am na mu toll nga saxal ko ngir jëm yàlla waaye bokk na ci tam wa zikir xam nga booy dugg ci lislaam dana laaj nga wax baatub laa ilaha illallah muhammadu rasulullah ñu door a nangu ne ab jullit nga waaye du baat boobu ñu bëgg rek nga baril ko ci sa dund mu nekk zikkar boo xam ne dañ ci mën a dàq seytaane mu mën laa sori ba du tàbbi ci sam xel di ko lëjal du mën a yàq dara ci sa diggante ak sa borom subhanahu wa taala hmm. ndax zikkar mooy tax seytaane sori la mooy tax sam xel leer mooy tax sa xol set mooy tam lu am solo la kon boo ko waxee bañ considère la ab jullit ba noppi tam teewul ñu bëgg baat yooyu bari ci yow Sëriñ Tuubaa mi wax ci tasawur di saxaar naan baatub laa ilaha illallah muhammad rasulullah de képp ku koy wax te di ko teewlu tamit dëgg ci yow da nga tonowu da nga bën fiis lool ndax lim la mën a jox ci yiw ci sa diggante si borom bari na waaw ah, te it moo la mën a dàqal seytaane waxaat na ko faneen ne وسجن زيدان بلا خلاف ذكر الله المانه المعافي كل ذكر قام صلى الله وهي الفكرة أخلاتهم خلات خلات دن قوت البنتو من فكر واحد قرار لك تجينا ذكر كلا أمين جارين بذكر بره بخل من الله فوف الله خلات دي أمين جارين فوف فين من أمين خلات يوم صلى كيسو دي جندك سبرم أكون بني كو يالا بندي nga mën cee am tam ay taamulaat yoo am solo yoo xam ne dana feeñal dëgg-dëgg xam-xam ci yow yoo xam ne xam-xam bu lay gën a tax bëgg sa bëgg sa boroom lay doon ak xemmim jëm ci moom ak ragal ko moo tax mu ne wal fikrati ak xalaat fi tamaadi sax ga loo xam ne looy def lay doon jamono bu nekk wa bokk na ci yi nga mën a dundale sa waxtu bi tasadduqin ci sarxe muy jël alal joxe te yàlla tax hmm. mooy wajës bil maali mooy nga bijj alal mooy nga ñoddi alal ci sa bopp ila sawil xaaji jëmi ko ci borom soxla yi ñi nga xam ne ñoom ñoo ko aajowoo te nga def ko it li wàcc li ngir jëmm yàlla loolu tam loo am solo la daana laa siyama rawatina nag fadilatul ayaami bis yi nga xam ne ñoo gën ci bis yi mel ne mel ne lu mel ne bisu ajjuma ci weer yi lu mel ne weeru koor hmm. yooyu itam nga dàkk ci def jëfi yiw la am solo la waaye mahal axaare bi ànd ak jege ñaale yi itam ànd ak jege ñaale mooy booy itam booy li wolof naan bay ci sa wewu tànk sooy dimbalee cee fàtte ñi nga xam ne ñoo la gën a jege mhm. tàmbalee ko ci sa jëmmi bopp wàcc ci say waajur ak say njaboot say dëkkandoo say mbokk ba fu mën a egg rek waaye nag wa bil isaami itam ak ci way màgg ñi mooy nit yàlla yu kawe yu baax yi yéen ñoom it nga dem def ci ñoom xitmaal leen ci sa am-am lool loo am solo la hmm, bari na loo ci mën a jëlee loo xam ne loo rek la ko mën a jox ndax loo leen defal rek sa boroom nga ko defal bokk na ci ba tey li nga mën a dundale si waxtu al iktisaab mooy fàggu abadan ba faaw bi la amale ci jëf hmm. wal iktisaabi abadan bil amal bi niyatil xayri bi xayri malali wax na dëgg mooy fàggu mooy liggéey hmm. kasbul xalaal mooy fàggulu lew loo mën a jaamoo yàlla man cee yor sa bopp ak sa njaboot yéen loolu ci la nga mën a dundale sa waxtu la bokk soo xëyee def la la war ci sa diggante ak sa borom ci ay jaamu yàlla boo xëyee ci marché ba di liggéey ba tey ci ibaada nga nekk boo ci amee yéene fàggulu lew ngir loo mën a yor sa njaboot ba tey ci julli nga nekk rek ci jaamu yàlla nga nekk gu wér ndax suñ borom subhanahu wa taala moo la ko digal tollu leew loolu ci nga mën a jaamu sa borom mu nangu ko ci nga mën a xotti yéere sol ko julli ci yàlla nangu ko ci nga mën a def de dépasse lekk ci jaamoo ko yàlla yàlla nangu ko kon kasbul xalaal ibaada la kasbul xalaal ci yi nga mën a dundale sa waxtu ci la bokk waaye neen day fekk nag bi niyatil xayri la ko la koy def ibaada rek mooy yéene ci mooy ngi yéene ci rek aw yiw ak jëm yàlla di xayri malal ci lu dul yokkat nga bañ caa tàyyi mukk maanaam bañ a ker ndax léeg rek nga gis wax dëgg ku dara jotut ku dara jotut koo xam ne dara jotu ko ci xelam dara jotu ko ci yaram waaye xeetu taayal moo koy jàpp ba daanaka rek liggéey moom du ko xaw a def nii te du tee léppam rek ci kaw nit ñi la koy ajaat loolu nag yaafus rek la wa misluha akum kemam isaalu xayrin eggale aw yiw aw suróor wala mbégte li muslimin ñeel ab jullit doona xaraamin ci ludul aw naqar wa suróorin wala aw ay bokk na ci yi nga xam ne nit ki mën na ci sakk waxtoom di ci dundal waxtoom ba du dem ci neen mooy yiw woo xam ne eggale nga ko ci sa mbokki jullit isaalu xayrin aw suroor isaalu xayrin mooy lu baax loo leen defal aw suróor wala muy loo xam ne du jëf joo leen jox waaye ay kàddu la yoo leen jottali ci lislaam ba tooyal ci seen xol ba mu doon leen bëgg yàlla ak bëgg yonent bi ak sëriñ bi mooy isaalu xayrin aw suróor li muslimin doona xaraamin aw asoro walis nag nee na ngay yóbbu ci ñoom safaanom ñaar yooyu ndax isaalu xëy ab safaanam mooy xaraam moo tax mu ne doona xaraamin ci lulu aw aw wala aw ay mooy aw suróor bi nga njëkk wax muy mbégte kon fexeel ba eggale ci jaam ñi aw yiw ak waxi mbégte yu yu dëppoog lislaam bañ aw naqar wala musiba wax ba na ngay denc li nafsika ngir sa bopp xalaat tamaadi ci lu sax daxiratal werdi ndaxañtee fi werd minal awraada ci werd yi sëriñ bi nee na bul neenal sa waxtu mukk na nga fexe ba wut ndaxañtee fi werd mooy ab dogu werd boo xam ne danga ko yor di ko saxal di ko def te jëmmi yàlla rek tax nga di ko def mhm. wax ba na nga denc si nafsika ñeel sa bopp xalaat tamaadi ci lu sax mooy dog boo xam ne danga nga koy roote aw yiw ci sa digganteeg sa boroom mag ñi baax ñëpp loolu lañu defoon koo ci dem danga nga fekk ci moom dogub alquran bu muy jàng boo xam ne du ko jëllal bari na ci ñoo xam ne daanañ def fu ñaar fukki sit yuñ daawul jëllal wala lim bu takk buñ war di sikkar ci turu yàlla te jëmm yàlla rek tax ñu ko daan def ngir laabal ci seenu xol leeral ci seenub xel dundal ci seenub ruu ngir jege seen borom subhanahu wa taala wala ñu am ko ci xasida waaye lu mu ci doon rek yàlla yàlla rek moo daan tax nga xam ne yaa ngi koy rataxale sa digganteeg sa borom di ci jiim di jege jege jegelu sa borom subhaanahu wa taala mooy dahiratul wirdi minal awraadi léegi nag ñu bari defatuñ ko benn benn yecce ne mel ne ña ngi koy defit ñu ci bari nañ koy defee bokkut ak na ko seeni baay doon defe wala seeni maam am na ci ñoo xam ne danañ fekk rek dara ci seen baay wala seen maam waaye na ko seen bàyyi ŋabbe woon wala seen maam jooju ñoom ŋabbe wuñ ko noonu ndax ñoom mag ñi dañ ko daan def li wàcc leexi taala léegi nag moom li ëpp ci jamono ji man ngaa gis sax am ñu kurus waaye lañ cee def ba tey rek rëbbu àddina wut àddina rek lañ cee def waaye jëm yàlla taxul ñu di ko def ak donte ko sax tur yàlla wu set la itam yéene ji ca la mbir may dam moom ndax dañ naan ne lii boo ko dee def kat bu yàggee da am alal tax ñu di ko def wala bu yàggee da ngay am mbooloo tax ñu di ko def nga xam ne am na yuñ ci diggee yooyu yuñ ci diggee nag léegi moo moo leen ci orienté kon yéene loola lañ cey doxe kon doxewuñ ci ngir jëmmi yàlla su boobaa ñu am ci xel mu leer ak xol bu set ak roogu dund dafay jafe moo nit mën naa nekk ci wutur ay ati at te du tee nga gis jikko yu dell ci moom te du mën a dañ waaw ndax yéene ji moo yàq jëf ji su boobaa daf caa jibluwut li wacc ci lee te lii ngir mu mën a leeral sam xel mën a fóot sa xol mën a dundal suru faaw jëmmi yàlla day tax saa bu jëmmi yàlla taxul laneen la tax rek loolee ngay jaam fi ne nit ñi dañ ci dul yow saa boo defee dara ngir dara dara joojee ngay jaam waaw maanaam suñ ne laa lii boo ko defee loo am solo loo xam ne daf lay indil alal joo xam ne doo ci sonn doo ko liggéey nga nekk ca di dawal sa xel ca loola jëmmi alal ngay jaam waaye woo sa borom doon tekk yaa ngi tudd ay baatam suñ la ci digoon ay karaama sax wala ay kawteef nga di ko defit ba tey karaama ga ngay jaam waaye jaamoo sa borom yéene lu am solo la mbir yu bari ci yéene lay jube ci yéene lay dammoo te foofee ñu bari duñ ko bàyyi xel werd ni ma ko waxee woon rek kon jëf ju baax lay doon nga saxal ko mën naa nekk ay rakaan yooyu julli mën naa nekk alxuraan yooyu jàng mën naa nekk tur yàlla wooy werd wala waqalilan ak donte lu néew la sax nga def ko rek gis nga li yekkoon ngir mu nekk fii xadan ci ëllëg yowmal qiyaam man faatan di njariñ yowmal jawaa ci bisum njàqare la war na kada ak tiis wa ngir ëllëg yowmal qiyaam mu amal la njariñ ci bis boobee nga xam ne njàqare dana fa bari lool aw tiis dana fa bari lool su borom subhaanahu wa taala segal la mboolem la fa nekk wax na nga xër xalal ixlaas ci sellal ne na nga xër ci di sellal sellal loo am solo la mooy loo def yàlla tax looy def rek yàlla tax te loolu mooy yéene ju sell te loolu mag ñi fonkoon nañ ko lool mhm. wal fa ak di nëbb say jëf loo man leen jëf itam nga bañ di ko fisal lool di ko nëbb anil wara walis mbindee fi kon de tum ndax def na tagg la dal jësaay fa pay ga kon nee na su pay ga dikkee dana dana dana duun mhm, dana am njariñ ndax li ëpp ci jëf yi nga xam ne day fis nit ñi di ci teg seen bët rek yi moom du mën a bari moom la wax ne fa julluma baana lahum minhu fala yaksuru nafauhu hadan isij tala fukk fa julluma nga xam ne dafa feeñ lahum ñeen nit ci jëf yooyu tukkee ci jëf yu baax yi fala yaksuru du mën a bari nafauhu njariñam hadan ëllëg ba nga xam ne yuj na ko niir des na ko wuñ ndax ci def ngir yàlla rek ngis tal ko caaman jëf ji yàqu mu jàll ne tanbihun wa tatimmatun axrajtuha min alzahabi wa xayrihi wax na dëgg tanbihaatun ne lii ay yeete la wa tatimmatun te nekk yum jibloo mottalee bunt bi mu ne axrajtuha maa ngi ko génnee nag min alzahabi ci zahabu ibris wa xayrihi ak sax yeneen téere yu dul yooyu kon sëriñ bi daf fi indi yoo xam ne nag ay waxe boppam moo tax mu tàmbalee ko ci xult mu ne xultu laqad aynu naasa واشتغلوا بما يجر بأسا واشتغلوا بعلم ما لا ينفع في الخبر والحسر وما لا يدفع عنهم عصاب ربهم يوم الجوى وانهمكوا في الغفلات والهوى وحنا دق ونقلت واحنا وحنا من سرين بني لقد غر وجنان نورنا اللعين كن ربكم إبليس الناس نيني واشتغلوا بني سخلوا بما تلو خمني يجر دين يرد البأس أو أي nee na seytaane day war na nit ñi bañ daw ñoom ñëpp jëm ci soxla woo loo xam ne musiba rekk la leen di jool loolu kenn ku ne gis na ko léegi lu tax mu ne wastaxaloo ña nga soxla woo bi ilmi ma ci sàkkoo xam loo xam ne laayen fan du jëriñ fil xabri ci bàmmeel wala xasri ak ci bis ba yàlla pang jaam ñëpp di leen dajale wama ak loo xam ne sax laaya dafa du mën a jëñ xanhum walis leen xasaaba rabbihim bëggalum seen borom yowmal jawaa ci bisum njàqare la xanaa wan xama ko ñu nuur rek fil ci càggante yi wala ak bànneex nit ñi ñi soxla woo ci boo xam ne du amal njëriñ ci bàmmeel du ko amal bu ñu dekkee àlla yowmal xiyaam te xam-xam la boo xam ne mënut a dox mukk ni seen digganteeg borom subhaanahu wa taala ci bi suñ njàqare boobee àlla yowmal xiyaam ñu boole ko nuur ci ay càggante rek ci àddina kenn ku ne gis na léegi nit ñi buñ nee bëri rek am na yeneen xeeti xam-xam yu ñu gën a itti woo xam walis yéem a xam seen diine te jibluñ ci lu dul ne teel koo xam mooy tax sa àdduna teel a jàppandi te loolu dara lu fàtte ne jàppandi ak àdduna ci loxol suñu borom subhanahu wa taala la nekk waaye ku xam ne jàppandi ak àdduna ci loxol yàlla la nekk da nga xam ne nekkul ci xam-xam lu bari ci njaboot gi sax daanaka bala ñuy xam seen diine nañ ko war a xamee ñu dugg leen ci yeneen xeeti matière xam-xam yooyu nga xam ne jibluñ ci lu dul rek war ne maanaam mooy tax ñu mën a gaaw am àdduna te àdduna ci loxol suñu borom la nekk. moo koy jox ku ko soob moo koy xañ ku ko soob kenn ku ne daa war a xam ne njabootam nawleem rek la sa doom ji nga am tey responsabilité bi nga gàddu rek moo koy nekk te yow gàdduwoo lu dul ñaari mbir yi mooy sa digganteek sa boroom sa digganteeg sa moroom muy àddina mboolem borom kër yi kenn ku ci ne ñaari wartee fa ci moom digganteem ak boromam sa digganteeg sa borom la la ca war jàng koy tax a xam faaw nga jàng xam sa diini xam la yàlla digle na ci xam la yàlla tere nga bàyyi ko sa digganteeg say moroom muy sa digganteeg àdduna itam lay tax mu yéwén mooy ñu yar la yee la su ko defee nga doon nit ku yaru ku yew koo xam ne da nga mën a jëflanteeg doomu aadama yi sa soxla itam dana mën a fajoo ci biir jëflante gi ngay jëflanteeg ñoom ndax dangay bàyyi sa xam-xam baa sa man-man ci ñoom jële sa njariñ ci seeni loxo mooy da am loo man foo leen mën a féete féete gi nga leen féete foofee nag moo lay may it yow nga mën a jële ci seeni loxo loo fajee sa soxla waaye loolu loo koy wommat mooy ak yar akuk yeewu saa booy buñ la yaree yee la rek adduna dañ la accepté dañ nangoo jaxasoo yow te buñ jaxasoo yow nga liggéey ak ñoom danga mën a am loo yore sa bopp ak sa njaboot jàng ma nga jàng tam moo lay tax mën a taxawee sa diggante ak sa borom ñaari yi borom kër bu ne moom nga gàddu waaye loolu nga gàddu nag laa jubloo wax ne sa doom ji ñëw tam loolu rek moo ko war moo koy nit kon saa boo xamee ne jàngaloo ko soo sooxeel nga digganteem ak boroom subhaanahu wa taala su sooxee ëllëg rek yaa ko yóbbi ndax boo ko jàngaloon digganteem ak boroom du sooxe soo ko yeewoon yar ko itam digganteem àdduna du sooxe ndax soo ko yarut tam yàq nga àddunaam dana dem bay magum jëmm te du mën a am sax ab liggéey ndax kenn du ko wóolu ba di ko liggéeyloo ndax dañuy gis ne dañ koo yorut kon sa njaboot war nga koo jàngal te itam war nga koo yar loolu mooy tax nga mën a wàcc moom wan ko ni ko jàngal naa la sa digganteeg sa borom mën nga koo taxawee yar nañ la yeenal la sa digganteeg àddina itam mën nga koo taxawee lii kenn ku ne moo la war ci sa njaboot waaye jël sa njaboot jàppe ko comme jumtukaay boo xam ne da ko war a wuti alal am na ñoo xam ne dañuy jàppi seen njaboot wuutewul ak ëllëg boo xam ne dañ ko war a jël jàpp ne war nañ cee mën a bay ngir am alal nga xam ne fii tax rek moo mën a am àdduna jum leen indil ci lañ koy orienté waaye duñ ko jëme mukk ci luy tax am jariñ ci seen digganteeg seen borom. kon njaboot yi dañ leen war a jàppale bu baax ci yóbbu leen ci jàngukaay yi ñu jàng bañ leen a waaye yor sa njaboot yóbbu ko alxuraanam sax noppeewut nga naan day dem ci liggéey sàngam ak liggéey sàngam alxuraanam bu noppi woon sax waran ko koo jox beneen temps boo xam ne dañ ci jàng ngir xam diineem waaye loolu lépp rek mayatuñ ko njaboot gi bari ci doomu aadama yi amatul daanaka kenn ko ci mën a gis am njàngam egg te dara warul lu rek bëgg leen a ci luy tax jàppandalu àdduna dikk ñoom ba ñoom waajur yee man caa jariñu nit ñi dem nañ ba loolu xalaat bu dëgër dëgër la ci ñoom boo xam ne daanaka sax gëm-gëm lañ ko xaw a def koo gis naan ay da war a teel a am soxna nii bu ko defee teel a am doom yi mu jàppale la nii ba nga ne jàppale rek nga juum nii ndax yow yaa ko jur yow yor ko ba mu màgg di yaakaar ci moom ndimbal hmm? yow yaa ko dimbali ba mu mën dara nga wëlbatiku bàyyi yàlla ma la doon dimbali ba tax nga mën koo dimbali yàlla moom nga mujj ne ko ñukk foofee bëgg a jël sa yaakaar aj ko ci moom loolu njuumte lu rëy rëy la hmm? yaa ko jur yar ko di ko dimbali ba man dara kala doon dimbali ba tax nga mën koo dimbali mooy yàlla te yàlla moomu jugu fi waaye yaakaar ko rek njuumte la yaakaar sa njaboot ba bëgg aj sa sa teraanga ci ñoom rek njuumte la ba tax ngay jël seenu dund di ko jëme ci leneen loo xam ne dañ leen tee xam seen diine loolu ëpp naa def loolu lu mat a moytandiku la ñu bàyyi ko xel bu baax a baax tubaarkàlla xam ne yooyu yëpp amul njariñ la am solo nit ki mooy bu jógee na jéem a xam diineem su noppee la ca des lépp mi ngi ci kanamam lu ci ak dundam lu ci ak dundam matale rek mën na koo def incha allah buñ dellusiwaatee rek ñu leeral ko ñu xam ne ñi ngi yemoon ci bayit bi muy waxe ne washtaxaloo bi ilmi ma la yanfau fi lxabri walxasri wa ma la yadfau anhum asaaba rabbihim yowma aljawa wanhamako fi lgafalaati walhawa إن شاء الله